te euh, mbirum mbirum justice ni mu ni ko ni ko askan wi ni mu intéressé askan wi yow ban lecture ngay am ci ci ci lu ne mel. oui je crois que comme ni nga ko ni question bi c'est la lancinante question de la judiciarisation de l'espace politique donc quand on parle maintenant de la judiciarisation de l'espace politique li nga xam ne tey jii moom moo koy corroborer mooy on a constaté que depuis le régime en place nous a habitués à des procédures des procédures de manière ininterrompue donc yaakaar naa ne bi ñu ñëwee. des procédures qui qui ont qui ont qui mais qui mais qui des liens. qui ont des liens euh, avec euh, des des, acteurs des, des acteurs politiques. qui interpellent des acteurs. et des acteurs politiques de premier plan. parce ah. que boo xoolee la première arrestation qui a été opérée mooy l'arrestation de Karim Wade euh, relativement au dossier bi nga xamante ni portant sur la CREI l'enrichissement illicite. Ah. donc ñu dem ba ci biir on s'est rendu compte que donc condamné woon nañ ko par devant cette cour. après à la suite de cette condamnation il a pu bénéficier d'une grâce. te bi ñëpp dañ ko décrier parce que c'est une cour boo xamante ne nii. renversement de la donc, preuve de la charge de la donc procédé du renversement de la charge de la preuve. ce qui est inédit parce que en matière pénale. Euh, dans la procédure normale la charge de la preuve incombe aux accusateurs yow mi nga xam ne yaay accusé yow yaay prouver li nga xamante ne tey kii nii kat kii nii kat il mène un train de vie parce que enrichissement illicite la personne. day mener un train de vie sans commune mesure avec ses revenus légaux donc à du moment où tey jàpp nga ne par exemple moom il mène un train de vie sans commune mesure avec ses revenus légaux il t'appartient yow donc nga prouver kat ah kii kat li nga xamante ne ni am na ko comme train de vie du moom moo daf ko obtenir de manière illicite mais on a constaté que cette euh, juridiction que constitue la la CREI da doon procéder bi nga xam ne moom la ñu poursuivre il euh, il lui incombe la possibilité de prouver que moom bien yi nga xamante ne ni nekk na à sa disposition c'est des biens qui sont licites donc loolu nekk na leen loo xam ne lu inédit woon donc le renversement de la charge de la preuve a été décri décrié par tous les juristes parce que dans la procédure normal la charge de la preuve incombe aux accusateurs quand on parle de l'accusateur dafa mel ni rek ma ne la Ahmadou oui yére veste bi nga sol oui amoo ko jënde kon boo deful nag da nga luubal xaalis voilà léegi man mi la ko tuumaal man damay dem taxaw ne yow mi ñu tuumaal yow yaay lijjanti pour leeral est-ce que veste bi ni nga ko amee lew na. wala lewul te man mi la tuumaal dama la tuumaal rek dama taxaw ne. voilà loolu mooy renversement de la. loolu mooy renversement de la preuve parce que bu bu génnee CREI yi dans les juridictions répressives nor normales yi nga xam ne mooy am Sénégal li nga xam ne moom lañ constaté mooy yow mi nga xam ne yow yaa accusé parce que en en matière pénale ñaar ñoo mën a accusé la victime moom moo moom moo mën a porter plainte par la par le canal d'une plainte avec conçu de partie civile mhm. porter la plainte devant la juridiction apporter la preuve pourquoi mu porter la plainte d'une infraction mhm. wala boog le procureur de la République gis na par exemple il a une infraction boo xam ne commettre nañ ko mu autosaisir moom aussi mu apporter la preuve que kat yow mii kat lii lan lay toppee. Mhm. donc ça dans dans les juridictions de droit commun noonu lay fonctionner mais CREI on y un quelqu'un boo xam ne ni liggéeyal na Sénégal et il mène un train de vie sans commune mesure avec ses revenus légaux qu'on lui connaît donc ñu nekk kat ah yow à partir du mois où kat tu un train de vie qui aux antipodes de tes revenus légaux donc il t'appartiendra maintenant de prouver de la licéité des biens qui sont à votre disposition donc bi ñu ko defee ci Karim Wade nag yaakaar naa ne li juristes avaient décrié cette situation de fait mais aussi beneen situation bi nga xamante ne nii juristes yi doon nañ ko décrier par rapport à cette juridiction c' est que au niveau de la CREI il n'y avait pas le droit à un recours effectif autrement dit bu fekkente ne par exemple tu es condamné par la CREI tu n'as pas la possibilité d'user de droit d'interjeter appel on est directement vers la Cour suprême la voie de l' appel est exclue amul amul amul amul amul amul appel xam nga tey ji bu la condamné en première instance tu as la possibilité de relever appel de la décision pour que la cour d'appel pour que la cour d'appel puisse véritablement soit rendre un arrêt de de de de de confirmatif mhm. wala un arrêt infirmatif donc bu fekkente ne arrêt ben rendre aussi aussi d'accord ci nga mën a def ce qu'on appelle le pourvoi en mais li ñu woon li ñu woon si mooy amuloon la voie de l'appel donc le nekk na leen na loo xamante ne nii. dañ ko fay dindi. dañ ko dindi ba mu set donc remplacé ko par le judiciaire financier bi nga xam ne moom lañ institué récemment. donc euh, mu nekk aussi une juridiction boo xamante ni ñu ngi xaar ci moom en tout cas mu def liggéey bi nga xam ne ni moom lañ ko sant parce que constaté nañ dans l' espace politique des politiciens yoo xamante ne nii ils se sont sur le dos des Sénégalais di mener ne nii que euh, loolu possibilités donc nekk euh, aux avant-gardes pour pouvoir euh, véritablement sanctionner ñi nga xamante ne tey jii kat dañuy def ay détournement de deniers publics des escroqueries sur les deniers et euh, les hauts fonctionnaires yi nga xamante ne nii kat dañuy utiliser seen i seen i privilèges seen i prérogatives donc di vivre sur le dos des Sénégalais. d'accord léegi après non dañuy poursuivre. parce que ci Karim da Karim lañ fi njëkk jàpp. voilà après Karim Wade donc on s'est rendu compte que la deuxième pour devant les juridictions Cheikh Khalifa Sall et relativement à son dossier concernant la caisse d'avance donc moom il a été poursuivi pour escroquerie sur les deniers publics avec les histoires de riz et de mil entre autres donc moom bi nga xamante ne aussi ñëw na il a été jugé par euh, le tribunal euh, répressif le tribunal euh, la, la juridiction répressive donc ñu condamné ko à cinquante ans d'emprisonnement ferme et qui disait Khalifa Sall Khalifa Sall c'était pas n'importe qui donc c'était donc euh, de la donc de ce point bu fekkente ne par exemple une autre personnalité bu am benn dayoo comme Khalifa Sall ñu koy traîner aussi dans la bu nekkoon na leen benn benn benn dossier boo xamante ne aussi occupé woon na le landerneau politico-judiciaire donc toujours dans la judiciarisation de l'espace de l'espace politique donc Khalifa Sall moom aussi au même titre que Karim Wade il a pu bénéficier d'une d'une grâce qui est une mesure d'élargissement boo xamante nii ça entre dans la compétence du pré dans dans dans du président de la République bi nga xamante nii dafa am ce qu'on appelle un pouvoir discrétionnaire à chaque fois que tey jii par exemple kat mu juge nécessaire accordeel nit ki euh, une mesure d'élargissement day jël décret mu gracier la donc euh, li nga xamante ne nii par exemple Karim Wade bénéficié woon na ci on avait constaté aussi donc après xalifa Sall donc la dernière personne bi nga xamante ne nii moom lañ impliqué par devant la justice moom mooy Ousmane Sonko donc au départ on l'accusait dafa am benn accusation euh, son dossier l'opposant à Adji Sarr bi nga xamante ne dafa partout woon Ousmane Sonko pour pour pour, pour euh, viol suivi de de de menace de mort donc ñu épilogué pendant ce dossier deux ans ñu ci épilogué di wax viol menace de mort entre autres donc bi nga xamante ne tey jii nii àggoon nañ ba ci cëppaandaw ga on avait constaté que Ousmane Sonko n'avait pas comparu devant la chambre criminelle le 1er bi ñu koy àtte donc euh, et on avait aussi constaté que le juge après avoir euh, constaté le dossier donc euh, je ne dis pas de manière contradictoire puisque euh, les avocats d'Ousmane Sonko n'avaient pas pris part à cette audience pour la bonne et simple raison que Ousmane Sonko n'avait pas comparu donc il pour devant la chambre criminelle dinañ ci ñëw donc ñu ñu ko et après à, à la suite de de de de cela on avait constaté que le juge avait fait une, une avait disqualifié les faits de viol. en en requalifié ko. waaw dafa disqualifié. Mmh. menace de mort mu yóbbu def ko corruption de la jeunesse mmh. donc l'infraction au départ il était poursuivi pour une infraction de nature criminelle mais à l'arrivée on s'est rendu compte que de par une disqualification qui a été opérée par le juge il d'une infraction dans notre correctionnel mooy mooy corruption de la de la jeunesse. donc mu nekkoon lu inédit. mu nekkoon lenn loo xam la parce que pendant deux ans. dossier la woon boo xamante ne. corruption de la jeunesse ci boppam la ñu mosut gis kuñ ci condamné. non c'est une infraction qui existe. oui mu taxi mais mosuñu ci condamné. parce que article 324 tiré 9 du code du code pénal prévoir na ko mais le fait que par exemple mu nekkoon lu inédit mooy. c'était la première fois au Sénégal qu'on faisait application de ce de cette de cette infraction loolu moo nekkoon li nga xamante ni te ba léegi nii. et dans le monde et dans le monde corruption de la jeunesse dans le monde jàpp nañ ne la disqualification qui a été faite bon je peux dire que par exemple euh, ñun d'accorduñ ci parce que il y a une absence de connexité entre viol. suivi de menaces de mort ak corruption de la jeunesse bi nga xamante ne nii à de de de cette audience criminelle moom la reteniroon à l'encontre de Ousmane Sonko bi ko jural tey jii sa situation de contumace bi nga xam ne après mën nañ cee mën nañ cee épiloguer. donc yaakaar naa ne bu ñu constaté par exemple ces trois personnalités phares yi nga xamante ne nii ils jouent un rôle important. dans dans la politique sénégalaise ils ont été poursuivis par euh, le régime de Macky Sall donc da ngay ne par exemple kat la judiciarisation de l'espace politique bi nga xamante ne tey ji moom mooy l'objet de la question day nekk lenn loo xamante ne lu patent lay doon et on continue de débattre dans ce sens-là.